rahmatan lil alamin sayidina wa maulana wa mustafana muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala kulli alihi wa ashaabihi altayibin altahirin wa man walah wa ridallahi alxaalid an jamii almuminin mbokki jullit yi mbokki dëkkandoo yi mbokki internet yi fu waay mën a nekk fi mashaariqi al ardi wa magharibiha ñoo ngi leen di nuyu ci seen site internet bi ñuy wax Mak TV nekk fii ci Sénégal particulièrement ci gox bu ñu naan yaraax mooy sunu fief di nuyu ñi nga xam ni ñoo ko initié di leen ñaanal yàlla bëccëgu ajjuma yal na yàlla barkeel seen liggéey yal na yàlla barkeel te yaatel sit bi ba ñëpp xaj ci di leen baalu àq di leen déwaniku ci at bi nga xam ni dugg nañ ci muy at bu bees ñu nekk ci bis yu njëkk yi ci weeru muharram di ñaan yàlla li ñu rëccoon ci at bële paase yàlla nañ ko yàlla jéggal yàlla bu ñu yàlla topp dara di ñaan at bi ñu dugg yal yàlla may ñu kàttan wéralal ñu sunuy cër defal ñu sutura ba ñu mën ko jaamu dëgg-dëgg jaamu tabaarakallahu ni ñu ko miinee ci waxtu wu jot ci ajuma ñuy waxtaan ak yéen ci wàllu actualité ak yu ni demee waxtaanoon nañu ca waxtaan yële passé ci wàllu al imaama ak ni mu demee nan la ñuy tàmmee imaama yan critère ak yi ci aju xëccoo yi am ci jàkka yeeg jumaa yi tojante bopp yi te dara jaru ko fii ngir pal ak tur waxoon nañ lañ ci xam tey nag ñu ñëw bëgg a waxtaan ak yéen ci beneen tomb boo xam ni xëy na actualité laaj na ko muy métier boo xam ni moom lañuy tuddee tasu xibaar ak li nga xam ni moo nekk ci biir mooy métier bu noble métier bu am solo ñi nga xam ni ñoo ci nekk yal nañu xam lan mooy métier bi di leen ci ñaanal yàlla di leen ci encourager ñu bëgg ci waxtaan benn baat ñaari baat rekk ànd ak yéen ba kenn ku nekk koo xam ni yaa ngi ci millier bi nga bàyyi xel li métier bi laaj ndax du lu ñuy làmbatu du lu ñuy tàndale du lu ñuy yaakaar ay mbir la yoo xam ni nit ki moo sonn mu nekk métier comme métier yépp ak nobles bi mu àndal grandeur bi mu àndal universalité bi nga xam ni moom moo ko lal nit ki jàng ba am ay diplomam am waat ci kanamu askan bi wax ni incha allahu taala lii la opté pour def kon jamono boobu nga xam ni yaa ngi taxaw ci sa moroomu nawle sa moroomu gor waat ci kanamu askan bi ni incha allahu taala dina informer vrai et juste bëccëg boobu nga ko doon def bis boo demee ba ci sa biir métier ngay bind wala ngay filmer wala ngay wax del bàyyi xel bëccëg boobu ba nga taxawee ci sa kanam askan baatu tas xibaar ñu naan ko journalisme mooy as-sihaafa ci baatu arab dañu wax ni ci wàllu bu ñu doon wax as-sihaafa mooy lan dañ ni almihnatu allati taquumu ala jamci wa taxlili alaxbaari wal aaraai wa altaxaquqi min misdaaqiyatiha wa taqdiimiha liljumhur wa xaaliban ma takunu hadihi al axbaaru mutaalliqatan bi mustajaddaati al ahdaasi ala saaxa te mooy journalisme métier la boo xam ni li ko tax jóg day saytu te mooy day dajale di décortiquer ay xibaar ak ay gis-gis di càmbar di wirlu ndax xibaar boobu manqué wul crédibilité wala manqué wul objectivité ñu war ko mën a jël pour jox ko askan wi pour ñu mën a xam lan moo xew li ëpp nag ci xibaar bu ñu koy tudd la plupart dafay ñëw ci jamono ci li mu laaj ñu waxtaan ci mu mel ni jamono bi li xew defe naa mooy pandémie bi ak it yi xew ci sunu pénc mi ci sunu téléfilm yi ñii gisee ni ñii gisee ni loolu daal moom mooy fee yi nga xam ni moo xew ci jamono ji kon ki nga xam ni moom mooy yëngatu ci métier boobu ni ko góor gu baax gu sell gu yiw waxe woon atam muy sunu maam Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum waxoon ni ki nga xam ni moo nekk ci métier boobu su ko yëgee ak su ko yëgul na xam ni mission yonent la am ndax ki nga xam ni bu ne déglu leen téeméeri junni nit walla lu ko ëpp di ko déglu walla di ko seetaan mu am lu mu leen wara wax kon su bàyyiwul xel li mu war a wax càmbar ko rekk su juumee mën na juumal ñu bari ci askan bi moo tax ñu ni kon ki nekk ci métier bi su ko yégee ak su ko yëgul mission wu yonent la yore yàlla nag wax na ci alquraan ni yaa ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafaal fa ma ballagta risalatah waaye lu mën a xew wallahu yaasimuka min annaas mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógal nga yeete li ma teg sa loxo ci ay kàddu pour ñi nelaw yëguñu mbooyoo bi demal nga yee leen wax leen ni yàlla moo ma yónni woo leen kon baatu woo leen yee leen baatu tabliix te moom mooy jotal yàlla nag nee na ko ak lu mën a xew bul ragal opinion publik bi ba wax leen lu la neex bul tiit seeni pexe ba ñàkk leen wax objectivité wala nga ñàkk sa crédibilité ndax ñoom ñépp bu ñu dajaloo woon jéem ci yow loo xam ni d'accorduma ci garanti bi mooy wallahu yaasimuka min annaas mu mel ni nag aayo boobu yàlla bi mu ko joxee yonent bi tamit du fi jóg moo te képp koo xam ni dangay wax sa askan di la déglu soo jëlee aaya bi doy na la sëkk bu dee dafa am loo ragal walla loo tiit jàppal ci wallahu yaasimuka ko annaas noonu yàlla garantiroon ko yonent bi sallallahu alayhi sallam yow tamit soo ko gëmee xam ni mission prophétique nga yore yàlla mën na lu suturaal ba aar la ndax dëgg rek mooy dëgg kon nag ki nga xam ni moo nekk ci métier bi na xam ni métier bu noble la nekk xel nangu ne métier bi aada nangu ne métier bi penc nangu ne métier bi waaye nag dafa nekkul lu jafe-jafe ci ki nga xam mi ngi ci milieu bi te yëgu responsabilité ndax pakk yi ci nekk fausse information yi ci nekk yi ci nga xam ni dañ koy kooj ak naxaate yi yu ni deme noonu moo tax ku amul crédibilité amul objectivité soo moytuwul rekk mën nga daanu ci biir kàmb jullit nag ñaar moo fi nekk xayaatan bi sharaf aw mawtan bi sharaf booy dund nga dund ak sa honneur dund ak sa dignité booy dee tamit nga yóbbaale dignité yóbbaale sa honneur mais am na ñoo xam ni ci dund maa tey la ñu bëgg a dund am na ñoo xam ni ci dund folklore lañu ñu bëgg a dund am na ñoo xam ni ci dund tappale lañu ñu bëgg a dund fàtte ni loolu ñuy dund di ko dundale seen njaboot teg ko ci métier bi ci la nekk soo moytul lam leen di yàqal moo ëpp lu mu leen di defar moo tax nag kon journaliste bi dafa war a nekk ci critères yi ñu koy xàmmee mu amee lu ñuy tuddee as sidq mu jël ko ci yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla ma yoon yónni jël ci ñoom at tabliir jël ci ñoom al amaana jël ci ñoom al fataana kon bu ñu tuddee al sidq al kadib day dàqu bu ñu tuddee at tabliir al xiyaana day dàqu bu ñu tuddee al amaana al kitman day dàqu bu ñu tuddee al fataana al xafla day dàqu te mooy ki nekk ci métier bi li ñu koy njëkk a wax bi muy waat mooy est-ce que mën nga dëggu ci say propos mu ni waaw ñu ni ko li ngay wax dee ci bàyyi xel ak li ngay bind ndax kiraaman kaatibiina ñoo la tiim te yaalamuuna ma tafaaluun boo demee bay bind article wala ngay génnee sa gémmiñ pour informer bàyyil xel ni am na ñaari malaaka bii mi ngi ci sa mbagg ndeyjoor bii sa mbaggu càmmooñ bii mi ngi sa kanam bii mi ngi sa ginnaaw te ñoom ñépp ñi ngi déglu lan ngay bind wala lan ngay wax kon lu am solo la ñu bàyyi ñaari tomb yooyu xel kon bu ñu tuddee as-sidqu dëggu bi kon day dàq alkazib te mooy ñàkk wax dëgg ci lu xaw a yomb la nag ci métier bi ñu baal ñàkk bu ñu waxee jotal bi li muy am solo solo kon day dàq alxiyaane bii firi war ak wuruj ñetteel bi mooy al amaana mooy nga nekk ku wóor nga am kóolute ci métier bi kon soo wóoree li muy dàq mooy alkitmaan nëbbut kon amatuloo looy nëbb amuloo koy ragal mbaggam amuloo looy ragal parce que li nga war a wax wax nga ko ñeenteel bi mooy alfataana mooy nga xellu nekk ku muus xam lan ngay wax kañ nga koy wax noo koy waxee foo koy waxee su loolu dajee ceew nag dafay dàq ceew lu ñuy tudde alxafla te moom mooy sàggan kon moo tax ki nekk ci métier bi war na bàyyi xel li nga xam ni mooy métier bi ci lu am solo la am na ñoo xam ni nag li leen sonal mooy lañ cay gañe mais dañu fàtte ni wërsëg ñaar la wërsëg bi ngay topp di ko dàq di ko sàkku ak wërsëg bi lay sàkku di la dàq ba boo ko toppul moom ma nga lay topp di la ut moo tax kon dund ci dignité wax li nga xam li nga xamul nga mandu ci soo tëddee bu ñépp nelawul yow dinga nelaw waaye boo defee lu jaaduwul bu ñépp nelawee doo mën a nelaw te barina ci métier bi kon métier bi aar la te dañu wax ni aar amul lu ci ñaaw lu ñu ñaawal rekk moo ci nekk aar amul lu ci ñaaw lu ñu ñaawal moo ci nekk moo tax kon nag ki nekk ci métier bi dafa war a vérifier source càmbar ko natt ko ba ni mu koy jotalee pour nit ñi mën ko jël kañ la ak fan la ak naka la loolu ñu bàyyi ci xel ndax ñaar jullit bu ne ak ku dul jullit nga nekk ci métier bi war nga ci bàyyi xel mooy lu ñuy tuddee occasion ak raison man nga am occasion génnee benn xibaar te fekk amul raison d'être man nga am raison d'être génnee benn xibaar te occasion bi propisul pour nga génne ko kon soo dajalee ñaari am occasion am raison génnee xibaar bi ci lay ëppee porté te ci la ko ñépp di dégloo mais nag am na ñoo xam ni dañu dem ba yàq seen métier bu ñu demee ba génneeti benn article dañ naan ah xanaa du ñoom diw kenn dootul lire seeni message kenn dootul déglu seen info parce que ñëpp dañ naan ah ñoom de la ñuy wax duñ ko càmbar te loolu la muy yàq mu ëpp lu muy defar moo tax nag kon li ñuy tuddee alqalam te mooy plume ñu ni ahadul lisaanayn moom dañ koy jàppee comme lu ñuy tuddee langue te moom mooy làmmiñ yàlla nag mi ngi teelu dànkaafu ñun ñu nekk ci métier bi naan waylun li kulli lu lumaza te mooy kii ayibal nit su teewee ak kii ayibal nit su fàddoo bum ci mun a doon yàlla nee na am na benn espace bu ma réservel ñi nga xam ne ci loolu la ñuy dund boroom xam-xam dem nañu sax ba indi ko ci ki nekk ci métier bi ñëw fekk nit ci benn événement xëy na muy nelaw wala soluwul solu bu baax nga jël ko filmer ko rek pour ñu ni diw sàngam soo ko yëg ak soo ko yëgul dugg nga ci lu ñuy tuddee alhamzu wal lams moo tax ñu war ci bàyyi xel bu baax a baax kon na ñun ñi nekk ci ëtt bi bu ñu doon càmbar ñu dugg ci lu ñuy tuddee le monde des animaux léegi-léeg di ko suivre lu am solo la dañuy wax ni kon ñi nekk ci ëtt bi mën nañ leen di am lenn nag ci ñuñ leen di jàppee ci biir rab yi am na ci ñoo xam ni ñi nekk ci ëtt bi dañ leen di jàppee ñu amee jikko ganaar ganaar lan mooy jikkoom mooy day gës salte du doyal safaan lu salte rekk lay nekk moom lay lekk moom lay naan di yuuxu am na ci ñoo xam ni noonu la ñu mel ñooñu nag yàlla di leen dànkaafu naan inna alladina yuhibuuna an tachia alfaxishatu fi alladina aamanu lahum adabun alimun fi dunia wal axira mooy ñi nga xam ni dañu yàkkamti rek génnee information rawatina mu nekk bu fausse rawatina mu nekk bu mensongère bum ci mun a doon yàlla nee na ñi yàkkamti pour toroxal jullit ñi pour feeñal seeni ayib wala pour ñu yàq seen der ci pénc mi ñi koy def jaar ko ci fausse information teg ko ci dëru jullit ñi yàlla nee nañu xam ni bu ñu tëddee dootu ñu nelaw ndax bàkk naa leen guerre fii ci àdduna te ëllëg yowmal qiyaam bu ñu ñëwee ma réglé leen presque mooy li maam Cheikh waxoon rek nee nit dina tudd benn kàddu teg ko ci deru gor teg ko ci deru ku taqewul laalewul nga wax ko rekk kàddu boobu mujj soppaliku nekk poison dugg sa deret di la ronger di la ronger ba nga yàqu doom juddu yàqu sët juddu yàqu mu ni est-ce que sawar làmmiñ jar na ko mbokk yi tontu yi mooy sawar làmmiñ jaru ko am na ñoo xam ni dañ leen di jàppe dañu amee jikko bëy bëy lan mooy jikkoom ca mooy day wax rek subaak ngoon am na ñoo xam ni daal bu ñu leen dékkee micro mooy dafa mel ni daal ñoom ñoo moom àdduna bi lu leen neex wax lu leen neex génne lu leen neex publier wax suba ak ngoon te na day jàngale jullit bi su safee wax farataam mooy mu noppi am na ci ñoo xam ni dañ leen di jàppe ñu amee jikko xar xar tamit moom lu mu xam mbëkk tuy tuy loo ko waxul xamu ko am na ñu mel noonu am na ñoo xam ni tamit ci biir métier mi loo leen waxul xamuñu ko ñooy damm ñooy rajaxe ñooy jaxase ñooy mbëkk nit ñi ñooy ñooy ñooy yàlla nañ ci yàlla musal am na ci ñag ñoo xam ni amee nañu jikko nag nag mooy dundal ñépp ndax yiwam mbaaxam am na ci ñu mel noonu te mooy ñi nga xam ni ñoom dañuy informer juste et vrai ñi nga xam ni bu ñu leen fayoon ay milliards yi milliards pour ñu dugg ci gor duñu ko def duñu informer lu ñu xamul te bu ñuy wax dinañu ko natt ni ñu ko war a waxee ba kenn du blessé xam nga bëri na ñi nekk ci ëtt bi liñ leen di ne mooy tey li ñuy wax ci deru jàmbur di ko wax ci doomu jàmbur jabaru jàmbur sëriñu jàmbur euh, nitu diine nitu aada tey yooyu ñuy wax ñoom ñi ci nekk bu fekkoon ni information bi ci ñoom la dal est-ce que am na ñu ci sérieux ba àgg foofu ak ton biñ koy waxee ak ni ñu koy càmbare loolu tamit interrogation la bu ñëpp di laaj parce que kon day mel ni deux poids deux mesures la kon nag ñun journaliste yi ñu ñu nekk ci ëtt bi ñu moytu bokk ci journaliste Kleenex yi te Kleenex mooy koo xam ni soo ko jëlee rek da ngay fomp soo paree nga sànni am na ñoo xam ne dañ leen di utiliser fay leen ñu yàqal seen bopp yàqal seen njaboot que jëloon fay leen pour. combattre nit wala combattre benn entreprise wala benn société wala benn mouvement wala benn association fay la combattre loola ñooñu mu jeex ñu daal di lay jàppee clé nekk si sànni la loolu jullit bu ne ku dul jullit tamit war nga ko mën a moytu dañu mas a laaj benn journaliste bu mag bu tuddee PPD bi ñu ko laajee tey boo ñu doon càmbaral journalisme ak li nga ci def ci ay at ñu koy càmbare mu ni daal li ma ci xam mooy journalisme boo ci nekkee finir sans avoir le regret et tourner la page sans la déchirer nekk ci métier mi def ci li nga war a def wax ci li nga ci war a wax def ci te amuloo ci benn gêne amuloo ci benn regret soo paree tamit li nga fi bàyyi ku ñëw dina xam ni xajamuloo cere ji ku ñëw mën na ci mën a jariñoo mais am na ñoo xam ni bu ñuy dem seeni dossier sax ñu ko bàyyi fi ñu nekkoon parce que ay erreur monumentale ay bêtises yoo xam ni impardonnable moo tax bu ñuy dem rek seen dem dafay ñaaw te métier bi niñ la ko waxee noobul na noble boo xam ni ku ne war nga ci nekk def li la war soo demee ba jeexal jël sa retraite sa rakk bi ñëw sa jarbaat bi ñëw mën a konte ni kat sunuy ancien fii la ñu tegoon seen tànk am na keneen ku ñu laaj ko tuddee Michel Drucker moom it bi ñu ko laajee ci wàllu journalisme noo ko gisee mu ni li ko jaaxal daal moom dafa jàpp ni cinquante pour cent d'inspiration ak quatre-vingt-quinze pour cent de transpiration moom la ko doon analyser ah bu fekkee ni nit ñi li amal nit ñi njariñ li leen amalul njariñ moo ëpp luñ leen di wan xam nga bu ñu demee tey ba sunu journaliste yi ñaari ginaar yu xeex ci mbedd mi sax ñu filmer ko dugal ci net bi kër jàmbur gu tas ñu dem am na loo xam ne du information parce que dañu xamul métier bi noblesse bi mu am dañu xamul ñoom grandeur bi war a nekk ci ñoom dañu fàtte honnêteté bi nekk ci ñoom moo tax comme amuñu lu ñu won nit ñi amuñu ay élément moo tax lu ñu for ci mbedd mi rek indil ñun ñi tamit nga xam ne ñun ñooy consommer lu ñu jox ñu jël suñu passe internet yi du ko fekkee suñu télé du ko fekkee suñu rajo du ko fekkee chaque jour ñu ngi ñuy nax ci ay mbir yoo xam ne amul njëriñ mais ñun nous la jeunesse ñun ñoo ko nangu mais bu ko nekk amoon sa fulla am sa fayda xam ne lii daf may tardé li ñu may wax amul lu ma njëriñ li ma nar a nekk di déglu ñaari ginaar yuy xeex wala couple jàmbur bu tas wala kër jàmbur gu ñu dugg ma dem jël sama alquran ma daal di jàng sama ñaari waqaf su dee damay jàng sama xasida noonu bu dee damay def sama askar noonu bu dee dama nekk chrétien gëm sama bible dem jël sama chapelle noonu kenn ku ne ñu bàyyi leen ci loo xam ne amul njëriñ ñu daal di ci génn bi ci des tamit ci biir ëtt bi comme ni ñu ko waxee li xew ci yàqute jikko yi am na benn téléfilm bu ñuy coow fan yi ku nekk ñu ngi ciy coow xëy na ñi ci wax ñëpp kenn ku nekk rek ak sa intérêt ñi ni dara newu ci dañ leen di jàppee est-ce ñoom noonu la ñu mel parce que ñun nag dañu am suñuy culture dañu am suñuy gëm-gëm dañu am suñuy réalité bu ñu demee ba bàyyi fi liñ fi nampaloon sunuy doom léegi suñuy sët ñëw nag jëlatuñu li ñu amoon suñu culture dem di jéggaani mu jaral ay nit ñuy tappale ñu leen di fay lu dul jeex di leen financer ñu dugg ci suñu biir di ñu gélo ay téléfilm pour yàq suñu doomi tubaab li ñu lay wax jaral na ko fii ak cent ans mu réussir benn projet mu koy financer même bu ko fekkewul ay sëtam ñëw réussir ko te ñun nag lu ñu xamul su ko defee yow nga nekk acteur ñu joué loolu benn euh, euh, ñu jox la benn mbir benn séquence nga joué ko buñ la ci fayoon quatorze milliards jaru ko ndax image boobu dafay salir sa der sa doom bu ñëwee ñu ni ko kii sa papa sa sët bu ñëwee ñu ni ko kii sa papa loolu nga ciy gañe tey mu neex nga war ci oto yi takk ci jabar yéeg ci avion yi ñëw boo demee ba nekk mag nga xam ni lii ma doon joué jaru ko kon sunu doom yi jigéen yi ñu ngi leen di ñaaxaat ñuy sol yére yu yiw di wax lu baax di def lu baax di wane lu baax ndax àdduna bi jeex na kuy xool dee yu gaaw yi feebar yu gaaw yi natt yu gaaw yi ngay wane sa cër ci télé bi nga xam ni ëllëg même boo deewee yow mi nekk acteur bi yow miy joué tey boo deewee pour ñu seedeel la amuñu benn image bu rafet sax bu ñu mën a teg ni diw mi ngi nii sa image yi nga def yépp da nga wane sa yaram léegi mu topp la topp say doom topp say sët topp say sëtaat bi ba ñuy wuy ji sunu borom loolu buñ la ci fayoon quatorze milliards mbokk yi jaru ko kon xam naa ci gàttal dañu doon bàyyiloo waat rek sunu njaboot yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci communication ak ni mu yaatoo ñoom ñi toll ci jàng dañ leen di bàyyiloo xel bu ñu dematee ba jàng jaar ci cycle yi ñu jaar est-ce que liñ leen di jàngal réellement ci communication ak ñoom li ñu ñëw exercer ndax loolu lañ leen jàngal ci école yi wala ñoom ñoo ñëw changer seen mode de vie bu fekkee ni loolu lañ leen di jàngal ci école bi ñu xam ni kon ñi yore sunu communication ñoom nañu xam ni fayir nañ seeni mission ndax kon li ñuy jàngale baaxul bu fekkee nag jàngal nañ leen lu baax tamit te ñoom ñu war a def suivi suñuy doom ñu génn ku wax ci rajo bi nga taf sa gémmiñ ku bind article nga dëpp say bët mais ñoom it ban ban suivi la ñu def ci ñoom ñi ñu jàngal te presque suñu doom yu bëri communication la ñuy def koo wax mu ni la man journaliste daf ma neex koo wax mu ni métier bi daf ma neex mais fi ñu tollu nii ci dix ans yi ñu génn wax dëgg yàlla kuy waxal yàlla xam nga ni métier bi li muy yàq moo ëpp lu mu defar ci ay diffamation ci ay mensonge ci ay fausse information ci jaxase couple jàmbur dugg ci loo warul dugg wax loo warul wax jaxase jaxase jaxase loo xam ni sax da nga naan lii est-ce que jaroon na euh, wane kon nag patron de presse tamit am nañ ci part de responsabilité ñoom tamit dañu bëgg lu yomb parce que nit ki dem jàng ba am ay diplôme am comme mënuñu ko fay il faut ñu ñëw jël rek benn soi-disant taaxuraankat mu daal di ñëw amul diplôme ñëw rëy na gémmiñ comme man rek ñu jël ko defal ko formation accélérée muy wax déggul olof déggul tubaab bu bindee article français la nga ci génne ci ay faute kenn xamul nu mu toll bu waxee olof nga ni kii yenn olof lay wax kon nag. bu sunu doomi jàngee communication ba àgg fii nañu leen may chance dugal leen ñu exercer seen métier ñu wax leen lan mooy métier bi gannaaw ba ñu ko xamee fàttali leen ko ndax Sénégal dëkku jàmm la Sénégal dëkku teraanga la waaye nekk rek di wax lu la neex génne lu la neex loolu amul benn njëriñ maam Cheikh nag yal na yàlla yokk leeram waxoon na ca waxtaanam ya nit ki dem ca port ba yanu fa journée bi ñu fay ko cinq mille mu ñëw dund dundal njabootam nee na moo gën nga nekk ci métier bi du wax naka su dul noonu naka su dul noonu luñ la ci mën a fay nga ciy dund dundal say njaboot bàyyil xel ne yonent bi nee na kullu laxmin nabata bil xaraam fa naaru awlaa bi yàpp bu ñu dundale loo xam ni dafa araam jàppal ni da ngay gën a duufal sa yàpp rek safara mi ngi lay xaar kon nag ñun parents yi ku ci am sa doom bu nekk ci métier bi ku ci am sa jarbaat ku ci am sa jëkkër ku ci am sa jabar ku ci am sa xarit nga koy suivre moo xam day wax wala day nekk ci série bu fekkee séq ngeen wax te mu nekk ci lu jaaduwul war na la may orma ci moom nga orienté waat ko ndax li ñuy joué dara baaxu ci wala lu ci bëri baaxu ci tey booy delluwaat ci ginnaaw ñi daan joué xëy na sax ay mag lañu mais ñooñu ñañu formé ñu daan joué ña ca topp ñooñu anañu ñu formé léegi tey culture amatul jikko amatul ngor amatul njàmbaar amatul léegi lan moo am ci métier bi mooy xaalis ak luxe naa am oto bu rafet naa am jabar boo xam ni ci célébrité yi la bokk wala naa nekk jigéen naa dem am jëkkër boo xam ci célébrité yi la bokk nga fàtte sa diine fàtte sa ngor fàtte famille bi nga bokk nga defee ni yaa ngi ci naxuloo kenn boo demee tuuti rek nga xam ni dee mi ngi lay xaar te yaa ngi dëkk ma àllaaxira kon nag loolu rek la waxoon nañu ko tënk di jéggulu ci kàddu yi di leen jéggulu at mu bees bi nga xam ni moom lañu ñu dugg yal nañu yàlla may ñu fekki ko ba dewee nag jàmm di ci fàttali ñépp rek bu kenn fàtte ñaan li tàmbale ci bis bi ba ca fukkeelu fan ba yépp bëccëgu ñaan la di ñaan yàlla di ko wax ni yaa muxawil al axwaal xawil xaalana ila axsani axwaal bi xawlika wa quwatika ya azizu yaa mutaal di julli ci yonent bi lu waay mën a def ci fukki fan yi muy fukki fanu weeru tamxarit bum ko xeeb nañu góor góorlu réccu sunuy bàkkaar yi ñu defoon daaw ak daaw jéeg dëgmal déwén xool li nga def est-ce que jaadu na daaw nga natt li ma def jaadu na jaadu na kon naa góorgóorlu li ma defoon jaaduwul yàlla am na ñu mu rey te gënuma leen bàyyi na ma fi kon yàlla xëy na daf ma bëgg ma tuub dellu siwaat ci sunu boroom góor góorgóorluwaat dëkkmal kon nag ñoo ngi jéggalu sunu mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ëtt bi du dañoo bëgg a wax rek pour wax waaye dañu leen doon delloo si rek xam ni métier bu noble la incha allahu taala wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullah audu billahi min alshaytani alrajim bismillahi arrahmani arrahim